oui on est mais mais mais ça man man dama bëgg dem euh, ñu ñu añ. i ça parce ah, que yow kii bi euh, il faut

Mais en fait, tu sais c'est quoi euh, Les patriotes, ils sont invincibles. Les patriotes, ils tiennent debout. Les patriotes, ils sont forts. C'est ça Rien ne vient à bout des patriotes. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein?

parcours bi daanaka sa waay. gërëm gis naa ci àll bi gàtt seen i réaction di leen dalal ñu ngi si jàmm di yàlla jàmm yu bëri. émission la émission bu bëree bëri. ndax amaana lu yàgg téye la. amee ba léegi lu yàgg refoulé la. mais tey wax dëgg yàlla ñu taxawee bi ñoom. xool photo xale yi xool seen i wéy bëri na waaye nag ñu ngi dalal ñëpp ci ginnaaw très bonne forme di waaj a nekk suñu musique bu ànd ak Kouthia xam bu ànd euh, euh, bu baax a bu bëree bëri ñu jàmm yàlla defoon na rek ñu nekk boobu de l'affaire boobu ba ñu koy téye bu ñëwee ba fii nag kilifa yi yëpp daje discours yi témoignage ñaan yi am na fu bëri fu ñu yóbbu ñu ñaan yàlla daal xale yi fi ñëwee yàlla yàlla xaaral lu mel nii fii ci biir Sénégal <laughs>